incha allah ah, salaam wa jërëjëf eh, Seyda Si Malick Sall ci nuyoo ci dugub am solo boobu yàlla yàlla fay ko te defal ko teraanga. Eh, Oustaz mbokk mi laaj bu am solo ci jataay bi. mel ni seen patron bi ñuy liggéeyal daal dafa jëndoon eh, benn billet ci wàllu loterie ne leen kenn ku ne mu may la mais billet bi ñoo bokk numéro mooy leen su gañee may naa leen xaay bi su perte man maa perte. far yàlla dogal billet boobu gañe nag muy mm-hmm. laaj ndax saritu islam yi dina dagan ñu lekk xaalis ba ñoom jërëjëf ñoo ngi am mbégte ci Nafisatu Tambédou Ibrahima euh, Ibrahima Bangoura mm-hmm. ak euh, ñoom ñi nga xam ñi ngi nii di ànd ak ñun ci jataay bi dinu ci topp ak mm-hmm. waa cat bi nga xam ne léegi te ñu àgg ci ñaari téeméer jërëjëf sëñ Cheikh bu nit jëndoon billet loterie ne su gañee jël leen mu gañe daa xaraama jël ndax li la may baaxut moom su gañe woon may leen ti waxut ne da koo gañe day dagan ci ñoom waaye su gañe woon ne leen bi da dama ko gañ ci loterie bi araam na ci moom mi gañe araam na ci ñim ko ñim ko bëgg a jox kon daal xam gi la sariya yi bañ daal doo ko lekk waaw parce que comme daa xaraam xaalis bu xaraam boo xamee ni fi mu jógee daa xaraam day xaram ci yow mm-hmm. xaalis bu xaraam boo xamul fi mu du xaraam ci yow daa nga dégg ca jamono yi bi ñuy nekk rajo dunia kun daan wax bàyyi faalu benn baas benn baas moom lu tudde woon boppam ndax dafa bokkoon ci carte waaye gañe ca carte ga émission bi boobaa man maa ci nekk oustaz Assane Fall yàlla na ko yàlla yërëm ak oustaz Aboubacar Seck mii nekk yëmbal ñun ñett la woon booba bu ka bu laaj ñëwee damay tontu deuxième bi imam professeur Assane Fall troisième bi Aboubacar Seck nu lañ ko doon def. dañ ko doon paasante. dañ ko doon paasante auditeur comme maa jël auditeur bii bii ñëw kii koy jël. Mhm. léegi nag mbokk mi woote taseeg oustaz Assane Fall jël. Mhm. mu ne ko da man damaa damay laaj damaa gañe ci carte gi xam xaalis. Mhm. waxu ko nag ñaata nga gañe. dam ne ko ah, ñaar bi yëgal naa la ko bañ caa gañe moo gën gañe ca. loolu la ko njëkk a wax bañ caa mm-hmm. gañe moo gën gañe ca mm-hmm. lekk la nga ca gañe bañ koo lekk ko gën mm-hmm. mu jël bi ba teg ko ca taal ba te lam gañe woon xaw na am solo am ñu ko ca mere ñu bari moom mu ne moom day sant yàlla waaye dafa bëgg nekk Baye Fall benn baas mii nga xam ne duggun ko nag moom émission bii du am bu émission bi amutoon laaj bi du am bu laaj bi amutoon tontu bi du am bu tont bi amutoon mu lekk lu araam si sëñ Cheikh xoolal li mu ko rek ndeysaan Allahu kon sa patron bii jënd billet ne bu gagné jël leen non bul gagné bu bu ngeen gagné bul jël mhm. bu ngeen perte bul jël bu lekk kenn may billet billet carte ngay jël wa euh, shukran euh, lekk xaalis loterie euh, lan lay jur ci doomu aadama ak ban daan la sariya wax gis nga xaalisu carte mhm. ku ñu fexe ba nga lekk ko. boo waxatee yaara bi du nangu. est-ce que kon carte gi maanaam su fekkoon ne LONASE dafa ñëw bëgg a doon sponsor ci Ali Imran TV est-ce que dina dagan ñu ubbil ko. déedéet. Mhm. déedéet. Mhm. comme xaalis gi carte la te kër gi këru carte la bu ñëwee dinaan ko non. Mhm. duñ ko jël. parce que képp ku ñu fexe ba nga lekk xaalisu carte. boo ne yaarab bi. yàlla du la déglu déedéet. sa communication yàlla dagg na. la ta'muruna bil ma'ruf. wala tanhawunna anil munkar aw la yusallitanna allahu alaykum shiraarakum fa yad'u xiyaarukum fa la yustajaabu lakum hadis la de da ngeen lu baax tere lu baaxul tere lu baaxul mooy bàyyi leen carte gi suñ ko defut du ngeen ko defut danaa jël ñi nga xam ne gënuñ ci ñu teg ci seen kaw di leen teg yu métti ñu baax ñooy ñaante du ma leen nangul ndeysaan kay ëpp naa def mooy sukkuran ci laaj bi am solo bi euh, jërëjëf oustaz ci leere bu am solo boobu ndax euh, DC LONASE ki nga xam ne maanaam moom moo jiitee kër loterie yi su fekkoon dafa dikk fekk euh, ab sëriñ wala borom xam-xam mu yëkkati alal jox ko ko est-ce que alal jooju mu ko jox dina dagat mu jëfandikoo ko waaw su fekkee xamu ko mën na ko jëfandikoo su ko xamee da ngay def na suñu sëriñ si daan def tegal fee wala joxal diw joxal diw ndeysaan <laughs> waaw tegal fee am na ci ko ko daan dajale ku mel ni suñu war a jur sëñ Saaliw ndeysaan léeg-léeg ñu ñëw fi mu ne bu fekkee soxla nga ca lee demal nga sàkk ca baabu gas suul <laughs> ndeysaan demal bu la yittee la demal nga sàkk ca ndeysaan donc soo xamee ne fa la jógee mhm. soo xamul nag amoo problème sare topp la waaw ah. ndeysaan deesee nee na nit a ngi nii koo xam ne que juróom-ñaar fukki million ak ñaar mhm. lañ ko dajaleel ci genn guddi c'est juróom-ñaar fukki million ak ñaar te islam dafay bëgg Euh, oto oto vingt millions mënu ko am. ñun ñu të ba léegi am ba léegi àgguñu vingt millions. di seetal loolu. est-ce que àgg nañ seize millions sax ba léegi bañ tàmbali ba fi nu toog. seetal loolu. te yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg ba fi nekk nii asalaamaaleykum. te genn guddi ñu mën cee dajale soixante douze millions. ndeysaan allah akbar waaw ah euh, jàngat bi de mooy maanaam kon nit ñi nekk am na lu leen gën a yitteel. Hmm, ah, ah très bien euh, léeg-léeg sax boo génnee ci dëkk bi firnde yooyu da nga ci am maanaam tey boo demoon ba ca fa ñuy tegee làmb ji fa ñuy tegee soirée yi maanaam nit ñi bu ñuy dem di dagg bee ni ñuy la xat-xat bu ni muy mel euh, bu oustaz Alioune woote woon conférence nga ne gratuit la da ngay ñëw moom mooy jën jëli seesam wut ay baasam organiser toog di waxtaan laajut kenn dara maanaam pour léeg-léeg sëy si fees sax day xaw a jafe maanaam te ñenn nit ñi la daal ñi ne ci jàkka ji ñoo ne ci ñoo ne ci làmb ci rek mm-hmm. waaw ñi feesal jàkk ñooy feesal arène ba rek salaamaaleykum allo waaw salaamaaleykum waaleykum ñu ngi ziar soxna si noo tuddee ñu wooyee puis madame Cissé maa ngi ci Belgique. ah alwa soxna si dégguñu la. yaa ngi woowee Belgique. maa ngi wootee Belgique waa. naka waa Belgique mbaa ñu ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm da nga def borom bu baax alhamdulilah. puusax yolal naa ko bi rafet na waa man nag maa ngi leen di daw ma dugg ndax saa moo daw loolu. ndeysaan ndeysaan. wax dafa daw yaram. ndeysaan ma xol bi dafa jeex. allah ndax ñu ko amoon ñetti boo ko defee def ko ko te bokkuma ko defoon man si yaam incha allah affaire bi dafa fekkee. incha allah. incha allah. sa doole mën nga ci def ngir yàlla. nga def ba ñuy déglu wax nit ko wax di leen nuyu seen ziar. am naa aussi wax ay bêtises tout le na ma ci sens jërëjëf jërëjëf jasakumullah jërëjëf euh, soxna si ñu ngi lay siyaare bu baax a baax macha allah ni nga ko waxee doolu am na euh, ci ñaar rek waroon na tax maanaam euh, lu mu woote nit ñi war koo def ndax nit ki woote ngir di ko def ci yàlla ak ci yoonu yàlla bokkut kii woote di ko def ci boppam ñaareel bi tamit jikko ndax doomu aadama bi jikko def ci am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom jikko la ko tàggee woon jikko mooy kenn mosul dégg ci làmmiñam mu wax nit lu ñaaw kenn mosul dégg ci làmmiñam mu wax lu déranger kenn ci pas-pasam te loolu jàpp naa ne lu jafe la ci kuy wax sax léeg-léeg nga gis nit koo xam ne eh, benn jataay lay def 30 minutes bala faa jógee rek dina tooñ fukki nit ak juróom ci wàllu kàddoom waaye moom sunu borom tabaaraka wa taala dimbali na ko ci côté boobu te yàlla ko gën a dimbali amiin amiin eh, lafal ko cat ci catu làmmiñ yi nga xam ne léeg mu dog ab jullit amiin yàlla na ko suñu boroom lafal euh, ba cër bi mu am ci réew mi yàlla na ko yàlla yëkkati. amiin mu gën a jëm kanam ndax nit la koo xam ne it euh, mbaax ak bëgg lu baax da koo ñoo te lu waaye am yéene na la ko. alhamdulilah ndax tey jii am na foo xam ne bu fa àggoon am na tey jii ñoo xam ne meluñu ne moom ci diine meluñu ñoom ci jikko ñu bëgg ci réew mi mën nañ ko am ndax fa ñuy jaar di ko am moom seexlu na ko wala ruus na ko ndax euh, pas-pasam ak ngorom ak dignité du ko permettre muy def yenn yi. asalaamaaleykum waaleykum salaam Moussa. Um, Moussa. di wootee di wootee waaw sëñ Moussa naka waa Angleterre. ñu ngi fay sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah mbaa yéen a si jàmm naka sedd bi. Ah, mu ngi nii de bari sedd ak taw. Ah, sedd ak taw. ak taw la boole de waaw waaw. alhamdulilah loolu day loolu de sëñ Moussa yéeme na. Ah, ngi nii de. ñu ngi lay déglu kon sëñ Moussa ñu ngi dégg. Mhm. di bëggati di kontaanati si émission bi. ndeysaan. ñaan yàlla deux mille vingt quatre bi yàlla defal ñu ci jàmm ak xiiwal. ndeysaan. ak poos yu bari si oustaz lu moo wax. amiin poos yu bari soo jukkee rek muy génn. ndeysaan. Ehm, amoon ñaari laajte rek yu ma bëggoon a laajte. bisimilah bi dama déggoon oustaz di wax affaire yi julli juma. julli juma waaw baal ñu yëkkati kàddu gi sëñ Moussa waaw